mbokk yi nouvelle loolu la tubaab di wax ci xibaar gu neex ndax yëg ngeen ni biig bi ñuy sargal sunu gaynde njaay yooyu yee nga xamante ni defal nañ askanu Sénégal lu rëy ndax pour pour la première fois ci seen histoire ñu daal dee am Coupe d'Afrique des nation fële na la ca Cameroun ci 33e édition bi. waaye bi président de la République Macky Sall doon sargal gaynde yi ca palais di leen décorer ci ordre national du Lion yàlla dogal kawteef am fa capitaine de l'équipe nationale du Sénégal ñu koy wax Kalidou Koulibaly. téléphone am daat koy réer loolu yëkkati coow lu rëy ba sax ay fuy am na fa waaye yàlla dogal na tey nag xëye nañ xibaar gu neex ndax ki ñuy wax mun Mountaga Cissé di fondateur et éditeur de Digital 24 annoncé na ni finalement gis nañ téléphone yi waaye du ku Kalidou Koulibaly kese Nampalis ci la bokkoon ndax ñoom ñaar seen téléphone yi dafa réeroon am sax ñu ne est-ce que nekkul dañ ko sàcc waaye ku ne xam na ni léegi li olof di wax naan sàcc ndënd yomb na waaye fa nga looloo jafe ba tax na ci xarale yi bees yi mujj na feeñ waaye yenn détails yi kan moo ko jël naka la demee ah leeral yooyu noonu amuñu ci lu leer waaye li gën a leer te wóor mooy nouvelle bi mooy mun Mountaga Cissé yëgle na ko nee na finalement xibaar gu neex am na téléphone yi gis nañ ko. kon mbokk yi xanaa rek di bàyyiloo xel nit ñi xel ci ndaje yi mel nii ci ndaje mbégte ah nu bàyyi xel seen bopp waaye ñii ñëw ci ndaje tamit ñu bàyyi xel ni kat wax dëgg fa la am na leneen lu fa xaj lu dul di sàcc wala di jël alalu jàmbur jaa ngeen jëf wa